noonu dafa feebar sax mënu maa wax ci moom lu ñaaw. ah dafa feebar. muy hôpital Samy. oh là là dafa fibrome da nga ko war a opérer nii. di ko ñaanal sénégalais yi di ko ñaanal réew mi. Mhm. képp ku ci mën a dimbali nga aidé ma ñu ketal ko ngir dem Seydina Muhammad ngeen oh, dimbali ko. parce que nit parce que nit bu nekkee ci ay ay ay tolof tolof. Mhm. ay ay ay tolof tolof damay def live léegi nii pour keetal ko may def live nii sama direct ku ma ci mën a dimbali nag ma dimbali ngi dem Seydina xam parce que mi ngi hôpital mi ngi mm. ku mën a dimbali ma dimbali Ousseyn inchallah comme que dina jàll léegi moom ñàkk di léegi ay appel waaw que ku ma ci mën a dimbali rek ku ci mën a dimbali billaay wallahi dafa feebar feebar bu metti barki alxuraanu karim te amul yaay amul papa amul lenn te man déw ma Aïcha man fa demee damaa tuur dan oh damaa tuur xéwal dan sax mi ngi koy dan sax mi non mm. mi ngi ciy def lu rafet rafet bàyyi fàllu mi naan ma Pawlish dan ci jàpp moom yëkkati na cinq cent dimbali ko ñu jàppale ko ñu aidé ko mm-hmm. ak Serigne tamit def na ci rafet rafet Serigne Diop di di ñaan buur bi di ñaan kooku moom nit social la Serigne Diop buur bi di ñaan képp kuy kuy def social mm. képp kuy def social nag ma dimbali ci Ouzin Keita mm-hmm. ñu opéré ko opéré bii yàlla dimbali ko mucc mhm. parce que sama xarit la bu génnee àddina mhm. sama àdduna day yàqu mhm. taala meng dimbali ma ngi dem rasulillahi taala soo mënee dimbali ci Ouzin Keita dafa feebar ko opéré ko kuy autorité sëriñ si ti bu sëñ Babacar Si ah na ngeen ma dimbali Ouzin ñu faj ko incha allah parce que feebar ku lay dimbali chaque jour ku mhm. lay dimbali chaque jour bu ko mhm. dara dalee ngeen koy dimbali sama numéro Wave moo nekk loolu 77 442 17 03 77 442 17 03 parce que dafa urgent mhm. ku ma ci mën a dimbali nga dimbali parce que dafa feebar ngeen ma dimbali ma ngi jëm rasulullah waaw parce que bu génne àddina dina am loolu ah doo day taal yi mm. yàlla na ko yàlla suñu borom bi may wér léegi ko yëkkati mboolem ku feebar Pawlish lu tax màggali woo woon Baay Faal dañuy wate te ñoo watuñu watuwuñu te bañ ko wat. waaw les taalibe Sëriñ Tuubaa nga yow. ku la woo yow. ah dama koo jàpp rek. ku la ko wax ku leen wax ku leen loolu xam. ku la wax yow. laaj ma laaj njañ moo tax. demuloo Tuubaa laaj ma taalibe gan la. taalibe kër taalibe sëñ Babacar ak sëñ Touba ñaare. waaw sëñ Touba ak sëñ Babacar waaw benn la benn di dem a laaj ma lan la. kon yow Baye Fall yi moo tax. Baye Fall yi tax ñu watu ba te ñoo watu wuñu dèjà. waaye nag ah, yàlla seen dëkk la noonu seen dëkk la dëkk jaan moom lu fa waay tere bu ko def moo tax dew ma Touba loolu rek moo tax dew ma Touba. waaw dégg naa la nga doon xas influenceurs yi demoon ci kër kilifa yi nekk Touba waaw waaw mais loolu nag passé na parce que wax na coow naa ci coow naa ci coow naa ba doyal. Hmm. bu ma cee yeewaat parce que nit nit nit bu ma cee yeewaat yow nit fin na nga yow pare naa ci. luy tàggatoo. yal na yàlla def jàmm yàlla def su émission bu neex lañ def yal na yàlla def sutura moom it. na yow ko aay parce que da daal lu ne maa la def nga ni tekk te ndeysaan sa caméraman bi <laughs> yàlla dafa ko mooy Serigne Fallou ko sëñ Fallou incha allah naa ko may jàll naa ko may sax incha allah waaw ba yàlla dafa ko sutura yàlla dafa ko na la yàlla suñ borom bi jubóoleeg sa jabar ji loolu loolu moom loolu moom loolu yàlla incha allah parce que na ko yàlla suñ bi def a muñ ni ma mel mu sëy man yàlla rek bu góorgóorloo tuuti jur waat yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla suñ borom bi may may leen njaboot gu barkeel ci barkeel xool waaw Pawlish waaw maa ngi def émission ni en direct Grand Mbaye maa ngi nii def émission direct maa ngi ñëw waaw waaw ah man xam na waaw mbaa waaw dinaa ñëw tey incha allah dinaa ñëw tey yow ku jub nga maa ngi dinaa ñëw tey ok grand ok grand Euh, Pawlish nag euh, ku mën a muñ rek moo mën a def ak moom émission ndax moom wax dëgg yàlla nu ko deex lay def macha allah yàlla na la yàlla jàmmal jàmmal sa xarit yi fi toog kon nag Serigne Fallou vraiment ñi ngi jaajëfal mbokk internet yu ñu doon suivre yëpp di am mbégte ak contentement comme ni ma leen ko waxee ci ndorteel li rek wéy leen di abonné ci suñu ay plateforme gërëm ko moom Serigne Fallou Gumba la nuyu nag Baye Assane Mesere bu baax a baax di leen jox di daje nag beneen yoon ak beneen daje daje allah merci <laughs> beaucoup <laughs>